Euh, dooleel leen jox leen majorité à l'Assemblée nationale ñu mën a dem def lañu war a def ci fulla ak fayda instant yi ku ne Sénégal dox na day wax lu ko neex Sénégal dara dox lépp na tekk tekkaar mais soo wuñu wayal sax Sénégal ko gën a tekk xam nga ndax lan réew daa mën a dem sans assemblée nationale fa la ñuy voté budget fa lañ koy waxee lépp lu ñu def fa lañ koy defee dégg luy problème bi lan la te ngeen bàyyi naan maa yàgg ci projet bi maa lii dama cee sonn nit a naa man waruma leen jox ay conseil parce que je suis pas passif doful man kañ laa dugg APR 2008 ba 2024 mosuma transmis sama bànni poto dama am 100 pour ñu ñëw dem APR si ñoo ma ëpp doole APR lan laa xeexalul APR lan laa sonn ci APR lan laa déggul ndax APR mosuma deele ba APR yow jaale sama mosuma feebar ba APR yow seet sama mosuma am problème ba APR taxaw ma mais bëgg la mais bëgg la nit ki booy ànd ak moom ànd la moom te yar rek tax te ngeen bañ cee xaar lenn nag pour retour yéen bi ngeen gëmee projet bi gëm Ousmane ànd ak moom yàlla da leen dimbali Ousmane mënu jox ñëpp poste yéen ñëpp mun leen dem à national nationale eh parfois da ngeen di gëm na ne kii bëgg na mais bu doon ma képp ci yéen fu mu mën ci doon li nga war a am di ko am mais boo leen ko doxalee noonu da ngeen mettre ko am maal ak sénégalais yi te ngeen may sénégalais lu ñu wax yàlla dëgg la bëgg yéen ñu yéen ko yéen ko forcé yéen Ousmane de yéen jël drapeau Ousmane teg ko ca kaw yow kaay sànq ba tey yaa ngi saaga ñas nga sant nga sant ñas moo rek xaw ma lay def man nag duma saaga doomu aadama di des sama dund gi man la ci ak waxuma la lu bon xaw ma la danga sant ñas teg ci fekkee doo foo compte may taal sama direct su ma la neexulee zappel nga dem mais léegi sénégalais léegi nii la ba waxee lu leen arrangé wu mbaa li ngay wax bëgguñu koo dégg ñu lay daggatal ay saagandey man da guddi yi ma toll nii romb naa loolu maam ak loolu pour saagante ni dootu ko amati ci man sama làmmiñ bii génn ci lu ñaaw bés moo ko nar def yàlla ma sama borom moom bés boobu man romb naa foofu eh man damaa xam ne Sénégal yi dañu maa sama jikkoo leen wala sama jëfin sama doxalin ba ma demee ba duggaat mën a kan ba xam sama bopp taxaw sama set bi xoolaat sama bopp te eh, damaa sopp lu bari ci man te du yéene tax ma delluwaat foofu maa ma solaat boobu boobu ab ban fiw jeex na ñu des nag. de chez Aboua, la caravane passe. sama jongo ma bi sama belli bi ben mbojom ba joduma ko yakam barke yalla dem magi au top soni ma rewe tani soni may bajanto def saf eh dama yek sama bop ah, parce que dama xamne man dama jongom nek man politique mo yakon sama jongoma yëkëte wax ju ñaaw bi mo taxon sama jongom muntul wona feeñ e eh, way bama démé ba togaat di wax lu baax di jëf lu baax na Ousmane Sonko mu sell mu xool ma ba mu neex ma ne ma maa la jéggal ci man nga bokk e xool ma ba ma ko waxee rek kii toog toogaay yonente yàlla suuf Yuusufa fii ci Sénégal nee naa la yàlla bu wàccee waatoon bu doon wàccee waat ne yonente jaru ji ñuy wër ji yonente bi fen nañ ñëw ba Ndakaaru jaa jël jël fukki penc ñaar gi gii mu Mouhamed Sonko bi la ak doomu Xadi Ngom bi di Koraan Caman ak Xadi Kebe mooma ndax toogaay yonent yàlla Yuusufa rek la fi toogee réew mi nag moom da ngeen di régler rek régler rek régler rek réew mi da ngeen di régler par force par force doy maam nga gi day liggéey kaful kafulut temps bee moom xaalis bi bëri woon na de xaalis ba mu toog sa néeg rek gis vous avez reçu un transfert de mbaa nga jëkk jëkk rek ñu woola ne la diw ne na nga ñëw nga dem joxla la bi laa ngay grippe ca baax na baax na bu la yeboo dellu si waat seen xel politique du métier politique bu la yeboo jéem a defar sa diggante ak say mbokk ak sa diggante ak say nawle ak say am di jàmm ak say waa réew man jigéen laa maa ngi nii affaire kenn mosuma faa nopp je t'aime sama suma koo dégg ba ma rek toog la patriote ñoo ne ma yow laa bëgg lu <laughs> ci waay ba <laughs> mën na ko ma mel nu ma neex patriote bu mag bi ah waaw sët la jër jób bi kenn day moom laa lay la laa maa ngi sama jàmm ma ne ko kenn du yéen les patriotes yéen a wóor de ànd ak yéen a wóor yére bu baax bi lu waaye mën a ànd te àndul ak yéen moo ko zéro yëpp laa gëm yéen laa wóor yéen laay sànni sama carte ci kàttanu yàlla ak mbaax ma su ma leen a sànni sama carte nag yàlla dëgg la bëgg waaye bii bu neexee rab bi sama waati wala bu ma deewu lee maa na koy sànni may leen doole ngeen dem assemblée te da ngeen di am nag te man gëm naa ne majorité bi di ngeen ko am ci kattanu yàlla ñu baax ndax nag ñu leen bëggoon ba tey ñu ngi leen bëgg de ñiy bañoon du ñu leen ñu leen bëgg. ma ne ko man ñi démb bu ñu bëggee tere seen pexe jubul man nag bokk ma ci man moom sama kuddu jaam la ràcc waaye incha allah rabbi majorité ngeen di am ngeen mën a doxal réew mi. xaalis bi mëna commencé génn njaay bi mëna dox ah ñu mëna liggéey liggéey bi ci katanu yàlla ak baaxam waaw kay dama ne bu bés ba dem leen voter Pastef les patriotes ngeen am majorité à l'Assemblée nationale sir Diomaye jaxar fay mi mëna liggéey réew mi ak son premier ministre xanaa yërëmu leen ko xanaa yërëmu leen ko nga daan gis premier ministre boo gis mu ngi guuxi leer leer nañ biir ba ni mu mel ku nek 9 mois waye ki gis nga ko mu nga jeex tak ñul kuku ndax lan liggéey rek pour lu jëmale senegal kanam jub jubal jubbanti yéen wor de <laughs> ma len gem eh coolee fi ne nena naa ci pundum pren ba gañi amul baat rek la lu waaye liggéeyul fi fukki at ak ñaar du léegi bëgg ñoo pour mu ko liggéey nañ ñu dimbal nañ ñu may jamm Sénégal yi dañoo sonn changement la wax dem leen ngeen voté ñu ñu am majorité à l'Assemblée nationale coow lu jeex maa wax lii man dagg leen duggal fu leen neex maa ko wax maa tey foo leen mën a voté te matalu Sonko les Pastef les patriotes boo leen ko voté leen ñu am majorité barki Seydina Mohamed di ngeen màtt seen baaraam wi ca di ngeen wér jooyte doo la gis ku leen nax dof dof lu leen fi rek. foog na rek comme te moom nekk Bassirou Diomaye Faye nekk président rek saye gis nga ku iñaana sag ndono sag ndeewin ñaaw boo leen toppee manipulateur yi fenkat yi dulkat yi sàcckatu alal yi sàcc ñu ba ñu jeex tàkk lu ñu dara ñoo ñu ko teg ngeen dégg leen rek ak seeni wax ba ngeen ba ngeen bañ a dem jox ñi majorité bu ëllëgee lu leen dal jël leen moom campagne lu ma kenn sama bopp lay campagne lu ma kenn de sama bopp lay campagne waaye lii dama koy wax chaque jour dinaa taal sama direct di ko wax ba keroog ca ngoon di seet ci ngoon incha bu ñu yàlla mayee wér ak dégg ñu ne Pastef les patriotes ñoo foofu nag falaay door a noppala ma xam ne sama jaan wàcc na kon ñun ay porteur de voix la te bu ñu waxee dinañu dëgg sëgëm Fatoumata boo leen seetee ci Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mi bokkul woon Pastef mi bokkul Pastef Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mi nga xam ne boo indiwaatee démbam nga jéppi ko ndax kàddu yu ñaaw yu mu jëloon teg ko seen leader kooku bu toogee tay ba naan leen ngeen jox seen leader majorité yéen seen bopp sax waru leen koo nangu yéen ko war a njëkk a bañ. cent cinquante député kay ngeen dem incha allah rabbi yéen ñëpp ko war a bañ ndax nag ba muy metti yéen la woon man fekk ma foofu fekk maa ci ruq bu neex ba kon bu neexee tey ma jóge furuk bu neex ba ñëw ci metti metti bi kon lépp yéen la ma ne doo lay jël ndox doo lay saxaar raay waaye doo lay nit nit Ousmane Sonko yéenay dooleem yéenay force am motivation tey nu mu mel ak lu mu am tey c'est grâce à vous sans yéen du dem yéen a ko gëm wóolu ko kon boo leen ko gëmee wóolu ko ba yegg si fii e yëggal leen seen kóolute e yëggal leen seen kóolute yëggal leen seen ngëm-ngëm ak moom ak seen pas-pas ak moom mbëggeel gi ngeen di woote ci moom bu fekkee mbëggeel gi mbëggeel te yàlla rek tax te boobu ba tey la dafa fidèle waxu fidèle fa ngeen ko tegoon mu nga ca jël lu milliard ya, di diko rawale utul utul utul ay tol yu mu suri mbuusi mbuusi milliard ya. gisuna mu jël doomam changer ko école utul jar privé kon bok yéen ko wara a ma jël ñaari patriote rek te tej sama li bi man ma yeen ñi di mer ni di wax seen problème la man sama fou de vous ma xol patriote la jël de ko do patriote duma la jël waaw ah, jël bay bay ñon mi ma xol lu muy wax bo fi waxe nak lu waxu rek ma bayal la fi boo wax lu waxu ma wacce allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Fatmata. yi na da ngi ci jam ma ngi sant mo wana ko Alhamdulillah ay ah, yow dal yow leg patriote nga quoi mere nañ la loolu waaye leg kay jeex na tak tak tak tak. duma pas chef de patriote la Sénégalais ñëpp xam naa doo Pastef loolu <laughs> loolu xam naa ko mais bon. yow yow yow yow li nga wax ci ñun rek doy na. li nga wax gars yi woote gars yi ñu wooteel Pastef loolu rek rek rek doy na. waaw ah. jarul nga nekk Pastef mais bon comme que yow porteur de voix nga quoi yow loo wax rek en tout cas daal bu amul cinq personnes naam dix personnes yoo xamante ni dinañ adhéré ci sa wax quoi sincèrement daal ñu ñëpp ay Sénégalais lañ wax dëgg yàlla. moo war gis ñëpp ay sénégalais lañ té nit mo nit dal nit dal moy loolu à tout moment mën nga def yeneen yoy faté ko bu ko di waxati sax. wa xam nga da ngay gis ño xamanté loolu pour nit faté ko bay John pour nit faté ko. c'est non tax bu luy li man daf du sax su ma tooñ jégganam jéemeñam sama nopp. si. loolu mo ko mais xam nga tamit nit ko nit ko bo bu nit kuko laal dalay laal mais man sama wari ak lima war dama koy def moy lan incha allah dana le 17 ci kàttanu yàlla mbaa xam sept du matin la ah. sangu ba set ah. dem ah. fess ci nga xamantene fa la voter voté bureau de vote nga pas safe les petits ñu am majorité à l'Assemblée nationale mën a a liggéey en tout cas dal képp ku képp na koo xamante ne loolu doy la. junni wala ñaari junni. mbaa cent mille franc mbaa mm. un million. bu mm. taxee nga jël sa réew. sacrifié. Mm. ndax alalu at mi. ah. jaru ko de yaa ko jooy de. jaru ko de parce que bu doon lool kese kese ma bu doon lool kese la Macky Sall fi jóge bu dem maye xaay loolu moo fi jeex nag en tout cas dinañ wol ci élection mini ni di ñew bu dee dinañ mëna a maye xaal xaalis boobu moo fi amatul sax. merci beaucoup léegi kay da ngay wax lu leer nañ nga teg lu leer nañ. Mm. gaay voter la. moy dëgg politique kay du affaire de ay ay xulo ñiiroo nga nit ku ne da nga wara far fi ngay far. bay nañu kenn mun ci dara bay nañu ci wante dëgg nag ku fi def fukki atak ñaan bo fi liggéey do do fi liggéey ci dara. lo mëna do ko di. gis nga ni da nga wara xam bon appétit suur nit wara xam. ci sa loxo gor momu ñuy té loxom ci nap fukki at ak ñaar def nga ko même waaw waaye yéen yàlla may na ay payu market bokku bi das nga xamne xaju bala len de se bu ñu tire di jexal tekke nañ ta sengoor ba lay jonne yalla dégg ñu ne ala ñet rek bu ñu bàyyi nguur bu ñu wacc ci nguur nguur da lañ japp rek ne ko ñàppaa ko toos sa ko ñàpp foo jëmala nga la loolu daa loolu kay dem na moom it loolu daa mën a nekk ñu dangay xam bon appétit suur naa fukki at ak ñaar nga am ko ci nguur pare wàcc ñu jox la liggéey gu baax gune yi di wuti gaal di wëri pour dem réew Macron ba yow Macron wóolu ba nga ñëw ne la maa la jox lii waaw doo gori te toog yow ba say sëtaat yi sa dootoo ñàkk ñun ñoy ñak ñun ñoy fami du ko re bu ñu tidd de way doto ñakati yow doto ñakati sa aduna ndax la nga nek nguur nek president de la republique du Sénégal milliard yu ne tagu sa loxo nga yott sa caisse noire du tibb du tibbal ku la neex wa léegi nak am nga foy tollu bu fukki atak ñaay jeex do gore dem jël sa njaboot ak ñoom ne cupp jox nañ la liggéey nga dem liggéey liggéey ba te pat nañ ñi ñu ne ci jàmm ña jot a toog nañu xool ñooñu toog dañ fii liggéey ak luñ fii def ñu may nga ko ba wàccee nga ko juróom ko wàññi nga ba juróomi at la ñu bàyyi nga ne noonu du fi samay lenge lañ ma joxoon delloo naak damay ñëwaat dama ah, ah. yalla bax na dañ ko yàlla bari na sutura senegal ki man de wa ngor ki war na wax ngor lu mu ne lu mu neexee de man de Ousmane Sonko ngor gu nekk gisuma ko ci mom mu nga jeex tak ñul kuk wo ko mu meen ko jëkkee dekk ba seru jomay fay ba séeréer ya lekul naan coful coful wut mayul mayle wut yéen yéen ñepp seen lex yaangi ngi ne bukk seen biir yaangi ne ni ngay mel ku nekk seen wer dañuy xes tecc mais ni kuy diwa diw maam Njaay Savon ba ndax diñeeru bi cee hmm? nga ñu ku jeex tàkk ndax bëgg doon dara bëgg Sénégal doon dara jiital Sénégal avant moom a luy problème bi ay luy problème bi baleel ñee ñu liggéey teel la nangu day yombal duma yàlla leen fi teg c'est pas les marabouts wala c'est marabout wala c'est pas les marabouts c'est population marabout c'est pas les marabouts c'est ja ah baax na yàlla di ko nar a xeexamam di nga sonn yàlla bu tracé nga effacé mu tracé war nga effacé mu tracé war nga effacé da lay effacé tracé te dootoo effacé ci te dootoo effacé ci nit <laughs> da nga xam lu ñu la waxut les waxut gis nga beut sax day wax bët nit bu la jàkk boo nekkee nit dëgg di nga xam kii lu mu la wax yàllaa fi ne vous avez tout fait ngeen ne ko doo masa doon yàlla def ko mu doon Bassirou Diomaye Diakhar Faye war a toog 10 jóg mu sell mu toog 10 ans bu paree daal jóg yi nga xam te ne moom mooy El Malick Ndiaye 10 ans gërëm su la Jóob ñëwagut Mbappé ba ñëwagut